diig rek dana ko ca jan loolu maam El Hadj Abdoulaye Niass moo ko garante ko defee xawsul bariyati boobu nag maam Khalifa Niass wax Cheikh na Tijaani bayti bu ñëw gën a ñor moromam ma bayti bu ñëw gën a xaal moromam ma gën a am xaal morom ma moom laa fas yéene ànd ceeg yéen ñi bokk bànneexal ki suñu xol ndax loola mën nañoo jural ak cofeel ci suñu xol ci cheikh na tijaani sharif cofeel ga man ñoo may bañu tëdd di ko gént gént googa man ñoo may ñi dem a dem ba far sax kañ doon gént dañu far di jàkkaarloog moom yaqazatan la mën man te loolu am na gaa yi ko yàlla may wala yu nëbbiwu ko mislu maam xalifa ne seex na tijaani bu ngeen ko réeree man mi ko xam maa ngi leen di xamal ne juróom benn yëfa ngi nii mayam la te moom kenn moo ko jagoo bi ci njëkk mooy xawsul bariyati mooy xaw mbindeef yi mbindeef yëpp bu ñu jàqee ci seen wàllu àdduna mbaa ñu jàq ci seen wàllu barsaq mbaa ñu jàq ëllëg ci seen wàllu àllaaxira ki gaaw ci xettali leen ci ñetti njàqare yooya ka gaaw mooy Cheikh na Tidiane ndax mooy xawsul bariyati mooy kiy xettali mbindeef yi su mbindee fi jàqee rek njàqare goo mën a jàq yaa xam boo dawee xettaliku ci daraja cheikh na ahmad at tijani moo kam njàqare ga dafa nekk di njàqarek àdduna wala muy gu barsaq wala muy gu àllaaxira yàlla dana la xettali ci barkeeb cheikhu tijaan ndax mooy moo ko ràngal maqaamaat xawsiya moo tax mooy xawsul bariyati kon kooka moo ca gaaw loola ay taalibeem ak ay soppeem yàgg nañ koo exeme xam na ci koo xam ne ummu hawis ay noon lañ woon yu doon jaaxal taalibe cheikh ya kooka ca taalibe ya kenn bàyyee koo fa ñëw di ko wax cheikh na Tijaani ne ko sama ñu ma dëkk ak noon lañ de lu ma am ñu yàq ko ñu yàqal nañ ma lu nekk yow ci yaakaar xettali ma cheikh na Tijaani ñaan tel suuf tafli jubale ko fañ jëm li ni mu soppeeku ngelaw loo xam ne dafa ñëw mujj dàqe leen ñoom ñëpp ñu mujj laxas waaja ñëw ba muy ñibsee fekkatut fa kenn ñu ne ko jooja kat gaa yi jëlee nañ leen fi sa noon yi heure sàngam la leen fi ngelaw jëlee mu ne kon heure boobu kat mooy bi ma koy wax Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu na mu gudd ci géej bi ko gaal ga mujj xoo Cheikhu Tidiane yaa Cheikh yaa yaa cheikhu yaa cheikh Ahmed Tidiane fa mu ko waxee rek yàlla xettali ko mu mujj nekk ci benn xànq moom moom moom moom moom ba mu yóbbu ko ci tefes kon moom yàgg naa xettali ñu nekk ci xat-xat ci jéeri ji yàgg naa xettali ñu nekk ci xat-xat ci géej gi yàgg naa xettali ñu nekk ci xat-xat bu mën a doon ndax moom yàlla may na ko tasaru fil awalimi kulliha nag alam bu waay mën a nekk boo fa wooyee cheikh mu xettali la ndax mooy xaw xawsul bariyati ñu ne ko muy benn may na maamam nekke woon xawsul bariyati maqaamaam xawsiyatu booba moom moo ko donn ci moom moo tax mu mujj di xettali mbindeef yi muy maqaama bu mu doonne ci maamam sayduna muhammad ñu ne ko xamuñu ko mu ne miftaaxul wilaayaat yi mooy caabi wilaaya yi wëlliyu yàlla yi amul kenn ku ci mën a dugg ci néegab wilaaya lu dul cheikh na tijaani moo la tijjil ba ne la fii mooy sa place fii mooy sa maqaama fii mooy sa naanuwaay ba mujj ñoom ñëpp xam kenn ku ne fuy sa naanuwaay ci qad alima kullu unaasin mashrabahum moom moo yore caabi néegu wilaaya kum tijjilu doo dugg moo tax maam xalifa ne cheikh de miftaahul wilaayati mooy caabi wilaaya yi nag ku bëgg a ci wilaaya fëggal buntab cheikhu tijaan ba boo ko fëggalee mu hubbil la ba hubbilaa la la néeg ba wilaaya nekk nga man caa dugg xam la ca biir kom bi nga nekkee ci biti li nga xamee woon li ci biti ñu ne ko xamuñu ko mu ne cheikh yi ki ma leen wax mooy sama sëriñ man mii ngeen yi ci wilaaya xéem ma ci xam-xam xéem ma ci may man mii kooka ma leen di junjal nga xam ne mooy xawsul bariyati nekk di miftaahu wilaayaati kooku man mooy sama sëriñ at tijaan ni yu kay ko tijaan kooku ci askanu askanam la ci wàllu néegu nijaayam dañ daan dàkkatalee ba nii ti tugaana su ko defee nag boo jëlee baat bi li muy tekki ci arab mooy tekki askan wi daw luy tilimal seen der kon saa yoo waxee ni tiijaan laa fexeel ba bul jëf luñ lay xeebee bul wax luñ lay xeebee bul def luy tilimal sa der bul def luy tilimal sa tariqa ñu dégg nga kon kooku mooy attijaaniyu mooy bani axwaalihi waa kër nijaayam ya ñoom lañ ko daan ñoom lañuy dàkkantalee attijaaniyuun su ko defee boo ko xamut misbaaxu naati seex mooma mooy làmpi lëndëm yi lëndëm ya nekk ca xol ya lumière ba ko mën a mu leer naññ la ca nekk ci ay tilim tilim ci ay xayriyaat ya la ko mën a dindi ba sa xol bi fees tepp ak yàlla tomb tomb yu ñuul yooya nekkoon ci ba alquran ne kallaa ba raana ala qulubihim cheikh mooy torche ba mooy lampe ba mooy projecteur ba wallahi bu niitee sa xol bi rek la ko nekkoon ci ay jàngoroy tilim tilim yépp mujj dañ te nit ku nekk ba keroog ba nga mësooree mooy yàlla gi nga njëkk a def dafa soppeekoo ak tomb bu ñuul ci sa xol nga yokkaat mooy yàlla mu yokk nga yokkaat mu yokk noonu lay yokkoo ba mujj sa xol bi mujj ñuul kuk amatul benn tomb tomb leer loolu boo ca xasee nekk dootoo amati réseau soo yàlla doo ko jot bu la yàlla wooyee dootu la jotati dara lu jëm ci wàllu yàlla ay ñoñam ak jëm ci alquran ak ak ak la meññi dara du la safati yow daal caaxaan foo mooy yàlla rek mooy nekk ci sa bakkan bi ndax sa xol bi moo mujj kastewu ba amatul benn lumière su boobaa nag ku mel nii ki gaaw ci mën a fomp tilim tilimi xolam xol ba mujj leer ba mel na melaatoon ca ba muy juddu bees ci kullu mawludin yuladu al fitra mu gende ku Cheikh na Tijaani fëgg buntam ba ci lay mujj dema dema dem ba mbon jafe ko dema dem ba baax yomb ko ndax dajeeg naag borom làmpab jamono ba niital na ko te ko mooy misbaaxu du junnaati kooku laaj ko tabaarakallaahu agresseur ba muy Zaanuun nga xam ne dafa doon yàgg di agressé nit ñi gox bam ko doon defee seen muqaddam ba génn àdduna ñi def délégation ñëw seet si Cheikh na Tidiane yi ne ko suñ muqaddam ba génn àdduna koo ñuy sampal mu ne bool naa leen Zaanuun gaa yi ne ko mooy agresseur bi mu ne moom laa leen booleeg xolam booba tilimoon ñuul kukk muy agressé nit ñi su ngeen demee da ngeen fekk mu leer naññi bay mujj di leeral nit ñi gaa ya dem rek ba ci yoon mu dogaale leen andi leen li ci seen kalpe yi mbaa maray leen waaw mu ne ñooña ne ko hee ñun nag bokkuñoo ña ngi daan agressé cheikh na Ahmed Tidiane moo ñu booleeg yow rek mu tëdd daanu amatul benn yëg-yëg di nelaw ba mu jugee yeewu fees tepp ci xam-xam fees tepp ci wilaya mujj di muqaddamab gox ba gannaaw ba mu nekkee di agresseuru gox ba kon kooku dafa dajeeg borom misbaahu du junnaati ku muy Cheikh na Tijaani moo tax kooku mooy hudan xad hada zanuuna bihi limaam xalifa junji mu ne boo ko xamut ñeenteeli mayam ga mu middu aqtaabi ahlillaahi la mooy kiy tëbb mbooleem xutbi yàlla yi xutbi ñooñ yàlla yi ka leen ba bu leen ñi naan bu rubi robinam ba ñepp mar kenn la muy cheikh na tidiane motax khalifa euh, xalifa buy tagg cheikh du wax ak suq yi du wax ak surga yi ponkal ya lay wax mu ne cheikh de moy jox ponkal ya ponkal ya doora jox suq ya motax mom khutbu ya lay wax ak khutbu yeb jamono gi ci mën nek kay khutbu samaan ba ak fu mën nek ak jamono ju mana don cheikh na tidiane moy ki koy ak fu mën bok motax mu ne ko mumiddu aqtaabi ahlillahi mooy kiy gaay yalla ya ñu ne ko xanaa ñenn ña ngay wax kay mu ne aj déedéet ajmaihim laa wax nag mboole seen génnewuma ca kenn xam nga nag ibnu mal dafa ne wa baxda kullin akkadoo bi ajmaa jamaa ajmaina suma jamaa suma jumaa kon nag boo ne ajmain kenn génnatut moom la moom moom moom la ñuy kiitee gannaaw kullu kulluhum ajmaina waaye kon nga xam ne kon xalifa far nag andi ajma ajmaihim kenn génnut ca moo tax mu ne minhu tukkee na ci cheikh na tijaan yi al futuuxu am ak hubbeeku li arbaabil futuuhaati ñeel borom hubbeeku yi mbooleem gaay yàlla ya ku ci am fatxu bañ lay ran mbaa nga am fatxu bañ lay xéem sa am ak fatxu ga yaa ngi ko ci cheikh na tijaan nga yëg nga ñàkk a yëg moo yore caabi ja de ku mu tijjil nga dugg bu tëjee ñëpp nekk ci biti moo tax mu ne minhu tukkee ko na ci cheikh na tijaan yi al futuuxu am ak hubbeeku li arbaabil futuuhaati ñeel borom hubbeeku yi lu ca waaye xam cheikh la daana wax la maamam daan wax yàllaay joxe mais amay séddale allahu muti allahul muti wa ana alqasimu loolu ba mu doonoo maqaama maamam ba sayduna muhammad ma waxoon loola moo tax mu mujj moom tamit di wax loolu ñu ne ko ba tey cheikh ay kan mu ne lahoo aji nekk la ñeexal ko infiraadun ak wéetoo infiraadun ak daataarloo bi asraarin ciy mbóot yu su dees na jagleel ko bihaa ca mbóot ya baynal xalaat yi diggante mbindéef yi laa wax fii alal maqaamaati mbir mu muy nekk ci gën cay kawe maqaama yi mu ne seex mooy ki daataarloo ay sekkare mooy ki wéetoo ay mbóot yoo xam ne mbindéef yi yëpp boo leen dajale woon ku dul yonantu ya dul saabaay sayyiduna muhammad boo leen laajoon mbóot yooya tur wa sax xamuñu ko waxuma la sekkare ba moom kenn moo ko daataarloo moom kenn moo ko xam moom la ko yàlla jagleel ndax li bàyyeekoo ci yonantu bi jaar ci jëmi yonantu jëm jëmi Seex Tijaan lay jëm ci moom nag lay door di teqali ko moo tax mu ne lahu aji nekk la ñeel ko infiraadun ak wéetoo infiraadun ak daakaarloo bi asraarin ciy bóot yu xassu yooyu def na jagleel bi ca mbóot yooyu def na jagleel ko bihaa ca mbóot ya mu jagoo ko baynal xalaaq ci diggante mindee fi fii alal maqaamaati mbir muy nekk ci gën ca kawe maqaam yi ba mu amee mbóot yu kenn xamut jagoo lu kenn jagoohut looloo waral mu mel nu kenn melut gën a kawe maqaama ci mboolem wëllu yàlla yi moom kenn la yàlla jagleel maqaamaab xadmiyatu bil xaa i moom kenn la yàlla jagleel maqaamaab xadmiyatu bil kaafi loolu moom kenn moo ko am mooy fardul jaamia su ko defee kon nag kooku mooy cheikh na tijaan yi juróom yi la maam xalifa ne moom kenn moo ko jagoo wala juróom benn yi mooy xawsul bariyati mooy miftaahul wilayaati waaye li may for for cheikh yi mooy sama sëriñ mooy misbaahu du junnaati mooy mu middu aqtaabi ahlillaahi mooy koo xam ne minhul futuuhu waaye mooy ko xam ne la lahun firaadun bi asraarin yu xassu biha ñu ne ko lii lépp fu mu ko jëlee mu ne li ko waral mu am lii lépp xabaahu da koo may taaha sayduna muhammad mii maamam bi maa lam yuutihi ci lu mu mayut bi maa lam yuutihi ci lu mu joxut ahadan kenn minal kamaali ci laa la moom mat la li arbaabil wilaayati ñal borom wilaay yi li ko maamam may mayut ko benn borom wilaaya li ko maamam jox ci ag mat joxut ko benn waliyu looloo waral nag mu jagoo juróom benn yi ma limal la te kenn jagoowut ko mu fekki mu bokku ca juróom mbenn fukki may ak ñett yi mu jagoo te kenn jagoowut ko moo tax mu ne xabaaw da koo may taaha yonantu bi taaha ci tur la ci tur yonantu bi boo ko chiffré quatorze la lay jox ndax taa juróom-ñeent la xaawu saxiira bi juróom la boo jëlee cinq nga prise ko ci neuf quatorze la lay jox weer wi boo xamee fukki fan ak ñeent dafay leer leer ak guddi gi leer ak bëccëg bi dañuy jokkaloo ñu gendee ko lool tuddee ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne taa déeréet ñu baat bi taahir la woon rek yaa taahiru la su ko defee nag eh, ci taahir la dañ ko tarqim dindi raaga ñenn ña ne déeréet taa yonentu fa daan naafi la ba benn tànk ba di sonn mu jël di ko gal gal ca moromam ma yàlla ne ko taaha dëggal sa tànk ci kaw suuf ndax kat ma ansalna alayka alquran li tashqa waaye beneen bi tamit yonantu bi bi ko yàlla defalee isra muy def miraaj dem ba nga xam ne yàlla bu doon a xam néeg mi nga war a dugg muy hésité bëgg a summi dàll ya yàlla ne ko niroog yonantu yàlla Moussa dëggal sa dàll yi nga daagoog moom ba xeg si waaye bokkoog Moussa maanaam faqlan alayka innaka bilwaadil muqaddasi tuwa déedéet yow kay taaha ma ansalna alayka alquran kon kooku moo ko jagoo taa moomu nag di yonantu bi di maamam moo ko may lum mayut kenn jox ko lum joxul kenn looloo waral Cheikh na Tijaani mel nu kenn melut moo tax Cheikh na Tijaani kum gën sa sëriñ xëpp ko maqaama xëpp ko ay may bum la tax a bàyyi sa sëriñ bi de jàppal ba mu dëgër loolu seex gën sa sëriñ te réewul sa sëriñ baax seex ëpp maqaama sa sëriñ te réewul sa sëriñ am maqaama jàppal ba mu dëgër bu la ko kenn bàyyiloo waaye nag yàlla moom la jagleel lum jaglelul kenn may ko lum mayul kenn loolu nag yàllaa ko def ca coobareem ja kenn mënu ca dara ndax mooy koo xam ne nii laa yusalu amma yafalu hum na kenn du ko laaj lu tax ndax ku ñuy laaj rek danga ngaa mënut ku ñuy laaj rek da ngaa xamut waaye ku xam lépp man lépp kenn du la laaj dara waaye ñun ñi xamut mënuñu ñun lañ sañ a laaj lu tax nga defee nii lu tax li lii léeg li mais yàlla amut lu tax moom ca maatayam nga la ko defee kenn mënu ci dara lolou nak kenn mënu ci dara motax tax ba ben way muy reey ngam di tëkkale Cheikhu Tidiane ak serignam ne Cheikh Tidiane ak diw mané ko xana Cheikh Badiane ngay wax kay way du Cheikh Tidiane Cheikh Badiane de ko la neex tëkkale ko way Cheikh Tidiane kenn du ko tëkkale kenn te nga bak sa mbeur ta bañ ca bolé wa fas kenn wala yow serif nga Cheikh momu nak mom lay mam khalifa ne min ba'di di Mahaza, gannaaw bi nga xamé ne làq na Tidiane lëf lu màgg lool làq nañ ko ñoom wëlliw yàlla ya min sharafin ci laala moom tedd nga la fam leen gañee mooy wa faaqahum dafa leen a kawe bi siyaadatin ci ndollal adidaatin yu limoo limoo limu mbooleem luy wëllu yóbbu yàlla di am cheikh na tijaani am na ko gannaaw si gi moom mu am luñ amut wëllu yu yëpp wilaaya gi ñu xam cheikh am na wilaaya ga waaye nag moom la yàlla jagleel xatmiya moom la yàlla jagleel katmiya kooku kenn xamu ko moom kenn ko xam comme ni nga xamee ne mbooleem yonantu yi maqaama bu ci ab yonantu am ak miracle boo mën a def yonantu bi def na ko am na ko waaye nag dafa am lu kenn amut ndax mooy xaatimul anbiyaay wal mursalina loolu la ko yàlla jagleel moom la yàlla jagleel shafaatul kubra fa tahajjat bihi naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmudan moom kenn ko jagoo kon nag wëlli wi lépp lu woy ab wëlli am ci jamonoy aadama ba ba ñëwalee bufta ba cheikh xam na loola ba pare xam loo xam ne kenn xamu ko moom moom xadmiya moom moom kadmiya kooku moom la ko yàlla teg ak yeneen yoo ne mënu ma koo lim moo tax mu ne min baadi ma xaasa gannaaw bi nga xamee ne làq na moom cheikh min sharafin ci laa la moom tedd nga la maa xaasoohu lëf lu màgg lool làqoon nañ ko ñoom wëlliwee min sharafin ba tey waaye nag fa problème ba amee wa faaqahum dafa leen a kawe bi siyaadatin ci ndollal daatin yonentu muy joxee leen woo ci ci kartanal yàlla ak coobareem ja wala yëpp dajee mu jox ñëpp kenn ku ne mille yéen ñëpp am ngeen dix mille ñu ne waaw dugal ngeen seen poche ñu ne waaw mu woo Seexu Tijaan moom ak moom ci ruqu ak yàlla kenn fekkewut ko mu yëkkati téeméeri junney milliards ne ko am yi maa la ko buuñaayee kon nag am na ñaari junney waliyu ya jàllal bi ko jagoo ñaari téeméeri milliards yi milliards ya te loolu kenn xamu ko kooku moo nag wa moo tax kalifa def ko muy nakira ne bi siyaadatin laa wax ci ay ndollal yoo xam ne haddidaatin yu limu la bu noonu siyaadaat rek doyoon na waaye mu teg ci tamit haddidaatin kon loolu kenn xamul ni mu ñu ne ko seex moomu mooy kan wax ñu dara ci jikkoom wax ñu dara ci ay jëflanteem ak ci tariqam bi mu ne cheikh moomu man mi ko xam di ko xam le maa ngi leen xamal ne sëhlu sa jiyati ku jàppandi la jikko diisuut kooyof la jikko ju gën a tedd la seex am lu nit xëccoog moom mu bàyyee ko ko lu ko nit gën a bëgg mu bàyyee ko ko ku ko tooñ mu jéggal la ku ko dog mu jokk la képp ko xam ne dangay ngay joxe xeñ ko moom buy joxe ci yow lay njëkkee sëhlu sa jiyati ku jàppandi jikko la lu ko nit hoo lu dul mooy yàlla moo la fay njëkk lu ko nit hoo lu dul mooy yàlla moo la fay mujj ku ku la kon déggee nañ te ne dafa war a bokk ci màndargaay sëriñ jàppandi jikko waaye sëriñ warta nekk ku diis ndax diis dafay waral diig te ku diis da nga diig ëllëg ci safaraaw yàlla wax yàlla na yàlla musal mu ci yàlla misaal na ko sax safaraaw àdduna bi aw safara bu lakkoon ci dëkk wala ci kër bagage yu diis yi rek ñoo fay def armoire yaag lal yaag ku leen bëgg a génnee dikk safara wa kon timit lu diis dana dig ci safaraaw zahir wi ku diis tamit bu ëllëgee da nga dig ca safaraaw baatin wala ëllëg ca àllaaxira kenn mënu ci dara muy safaraaw àllaaxira wa ñu ne ko seex kan la mu ne ma'muunu tariqati ku ñu hóolu la ji aw yoonam yoonam wi lu ñu hóolu la yoon la woo xam ne xam na commencement yoon la woo xam ne xam na digg yoon la woo xam ne xam na mucc ku sóobu tariqam danga nga xóolu ci mbooleem maxaawi fi ak muhimmaat yi ak umurul isaam yépp yàlla dana la ca musal kooku moom amul werante tariqaam ku ca jàpp di ko sellal doo tarxiis ku ca jàpp di di ko sellal tabaarakallaahu doo réer ku ca jàpp di ko sellal doo réerale moom daal yoonam wa ma'muunu tariqati la lu ñu xul la ci yoon ñu ne ko xamuñu ko ba tey mu ne soo maqsudul xaliqati ku ñu jublu la ci mbindeef yi ku bëri ñu ko topp la kon dafa bëgg wax ne ku njaboot la waaye en même temps nim njaboote ni la xamee dépense mbindeef yi mbooleem sëriñ boo mën a waxati rek Cheikhul ti moo la hëpp mbooloo loolu la ko yàlla defal ni maamam hëppee mbooloo ci yonantu yi ni la cheikh hëppee mbooloo ci wàllu yi mu ne nag kuñ jubla ci mbindeef yi fii kullil muhimmaati ci mbooleem hitte yi kenn ku ne saxaaju ak saxaajooy morom du benn waaye ànd ak ñoom ñëpp tamit seen aajo dana fa dana faju kii aajoom mooy tabaarakallaahu nekk wëlliwul maftuux mu jëm uti buntab cheikh ba xam na ko fa kii aajoom dafa ñàkk yorul yorul ku yor bëgg naa xoomal dem seeti Seexu Tijaan kii dafa bon bëgg naa baax dem seeti Seexu kii dafa bëgg yéeg ay maqaama dem seeti Seexu Tijaan kii dafa bëgg fan wu gudd ko ko ñaanal dem setu cheikhou tidiane ki dafa ragal ay noonam bëgg caa mucci dem setu cheikhou tidiane motax kon mom maqsudul khaliqati la mais fi kullil muhimmaati la maam khalifa ngees wax dafa def liñu tuddé ci balagha mom la def na sahlu sajiyati ma'munu tariqati maqsudul khaliqati fi kulli muhimmaati su ko defé lëhoo aji nek la ñeel cheikhou tidiane tasarrufu ak sopandiku fil akwaani ci mondo yi añ may xam boole seen laa wax kazaalika naka noonu mu amee tasaruf ci akwaan yi ñeexal na ko ba tey tarbiyatul arwaax yi yar rooxu yi wa zaateeg jëmm yi yar rooxoog jëmm seexal ci man ñëpp fexe ba rooxu jubóog boromam fexe ba jëmmu fekki rooxu ci jubóog boromam ne jëmmu sa place moo doon suuf rooxu sa place mooy kaw yow rooxu gi man cheikh danaa la yar ba nga dëkk ca kaw même boo nekkee fii ci suuf tamit yaa ngee laxasoo goji waa malawul axlaaya waaye tamit mu ne yow jëmm ji danaa la yar ci suuf moo doon sa cosaan ci suuf ngay mujj ci suuf nga dëkk nii waaye danaa la yar ba nga lëkkalikoo roo yéen ñaar ñëpp ngeen bokk dëkk ca kaw moo tax kon tarbiyatul arwaax yi seex a si man ñëpp kon ni seex amee tasaruf ci aalam bi ñuy dund ci bul bi ñuy dund ni la amee tasarruf ci mbooleem awalim yi nga xam ne boo ko doon lim xëpp na ñetti téeméeri awalim ak yu teg maam alaaji Malik koy wax ne eh, maanaam innal awalima aliyaha wa saafilaha boo demee ci balaaji Amadou Dem rabbil alamina ma ngi koy wax awalim ya nañ toll ci addu ci ci ci ci ci mbindeefi yàlla yi fenn na ña fa nekk nañ ña gëm ña ko gëmut ña ko xam ak ña ko xamut ña koy topp ak ña ko topput ak yépp mu farañ fànce ko ca mboolem awalim yooyu yëpp cheikh loxoom yegg na fa yàllaa ko ko kartanal te kartanal loolu ci dara ndax mooy inna laa ko kulli shay'in qadir moo ko kartanal muy def ay tasarufaatam ci mbooleem awalim yi moo xam aliyaha moo xam saafilaha yëpp foo ce dem ne xanaa cheikh fii la gën a miin foo ca jàqee nar takk boo ko fa wooyee bu la xettale nga doon xanaa fii la dëkk seen tasaruf passé wut àdduna am na ñoo xam ne seen tasaruf ci àdduna passé wut dëkk bañ ne passé wut gox bañ ne seex nag tasarufaatam ci lim yëpp la foo ca dem rek ci ñetti téeméeri awaalim ak nangam yëpp fenn fu ci nekk ñafa fa ña fa nekk la ñuy lañ lañ leen seexale ni tëbb ca la ñuy yëngatu leer ga ñuy naan moo leen ko nandal jëlee ko ci maamam mu jëlee ko ci yàlla su ko defee tamit ku fa takk mën na laa tàggarti ko fa jàq mën na laa teqale njàqare ga ci kartanal yàlla mi nga xam ne mooy rabbul izzati wal jabarut moo tax maam xalifa ne lahu aji nekk la ñeel seexu tijaan tasarufu ak soppandiku fil akwaani ci aalam yi maanaam aj ma yaam boole seen laa wax bàyyiwuma benn kazaaka naka noonu tamit tarbiyatul arwaahi yar rooxu yi wasaateeg jëmm yi ba rooxoog jëmm yëpp bokk dëkk ca kaw seexa ci man ñëpp ku laxasoog moom goj xam ca dara ku laxasoog moom goj da yëg ne dëgg dëgg dëgg dëgg seex daal tëbbam gi ñëpp ñë lépp la matale moo tax sax looloo ko may mun a yafiidu dana bëbbu madadun ak tëbb lawoo goog ñaal na ko min baxri irfanin tukkee ko ci géej ak men min faydi taaha géej googa nag mi bàyyi ko ca bëbbëg yonantu bi bi asraarin ay mbóot lay tëbb sa niyaatin yoo xam ne yu kawe la mu ne looloo waral seex madadam tëbbam foo ko fekk ma ngay sotteeku di tëbb ba mel ni géej te moom kat géej ndox lay joxe moom nag tëbbam ko ay xam-xam lay sotti ak i xàmmee ak i ràññee ak i ay maqaama tëbbam googa nag dafa bàyyeekoo ca géej maamam ga di sayduna muhammad tëbbam googa ay asraar muy ay sekkare yu kawe kawe la lay tuuse foo mën a nekk bu sa xol euh, feesee ci cofee rek fa la fa fa mu nekk lay nekk di la tuuse tabaarakalaaw di la envoyé comme ni ngeen di envoyante ay message yaa mën a toog fi mën a envoyé message ka nekk Amérique ka nekk Angleterre ka nekk Canada cheikh tamit fa mu nekk lay nekk di la envoyé message su leer ay message su secret ay message su xam-xam ay message su maanaam ay maqaama nga di ko yëg di ko dund di cay yéegee te moom fa mu nekk la nekk terewul lépp mi ngi jote ca moom kon nag moo tax mu ne yëf it na bëbbu madadun ak tëbbu lëxoo goog ñeexal na ko min baax ri xirfaanin bàyyee ko ci géej ak xam goo xam ne min fayri taaha dafa bàyyi ko ca bëbëg yonantu ba loolu nag la muy la muy sànni di ko tuuse ci ay message bi asraarin ci mbóot sanniyaatin yu kawe moo tax nag ma bëgg nga nga nga baaxle moo tax man maam kalifa maa lay conseillé yow soppem bi ne la jour na nga nemmeeku baaba hoo buntam ba del siyaara ji Seexu Tijaan in takun boo bokkee min ahli hadrati ci ñooñ péyam ba boo bokkee ci ñooñ tariqam foo toll dee ko siyaara soo bokkeeg moom benn dëkk bi bët bu set siyaare jeel soo bokkeeg moom mennam réew mi semaine bu ne soo génneeg moom réew mi nag wala yaa ngi ci réew mi da ngeen a soree weer wane siyaara ji ko bu soree ba sori réew ba réew fexeel maanaam uh, at mu jot nga siyaara ji ko donte wenn yoon la boobaa nag lam la mën a loon ba muy dundu ba mu génnee àdduna la ko gën a man ndax wëlli yóbbu yàlla dëgg mook tawayam feeg yàlla jàngi taw doo xam li taw di jariñ waaye bu demee ba taw bàyyi taw ci ngay doo a xam li taw di jariñ nga gis yam ñoral ca gàncax ga dugub ja ca ma basi ba ca yeneen yaag yeneen waaye ba muy taw dën da nga foo ne lii caaxaan la lay niru waaye boo demee ba taw baagi taw nag nga ne ah ndekk li doon taw lépp li ko waral kon ab wëlliyu ba muy dundu lam manoon bu demee ba génn àdduna ñu suul ko keroog la ko gën a manati kon maam xalifa ne foo toll del siyaare ji Seexu Tijaan sa jëmm ak sa xol na déplacé wu seeti ko su sa jëmm manta dem na sa xol dem ñu ne ko lu tax mu ne fa innama baabuhoo daal buntam ba baabu saadaati mooy bunti texe yi ku bëgg ak texeet seetal seexu tijaan ndax mu daan wax ne ah saariful ilaahi yàlla moomu de mooy wëlbati képp kum namm ci moom ak texe ba jëmee ko ci sama tarixa mu nekk mu moo mooy moo moo koy màng su ko defee nag mu ne ku yàlla nammut ci moom ak ak texe yàlla koy wëlbati ba mu wan sama tarixa bi gannaaw di ko xaas moo tax dafa daan wax ne fa ina saaiqa saadati yasuuqu ila baabihi wa qad qila fi tariqatihi saaiqu saadati yasuuqu ilayha wa saaiqu shaqaa'i yasrifu anha unaasan yusrifu anha anha unaasan mu ne aji màng jëmee ci texe mooy màng képp ku yàlla namm ci moom ak texe ba dugal ko ci biir tariqa Cheikh Tidiane bi ku yàlla namm ci moom ak texe hadi yàlla koy wëlbati ba mu wan tariqa bi gannaaw moo tax tariqa bi léegi-léegi yàlla boole ci bàyyi xeñ ci doom léegi-léegi yàlla xeñ koy bàyyi dugal ci doom léeg-léeg yàlla xeeñ ko baay ak doom dugal ci sët léeg-léeg mu xeeñ leen ko ñëpp dugal ci sët sëtaat loolu moo tax tariqa bi jërul campagnal kenn jërul propagandal kenn moom ci boppam moo propagandal boppam ndax promotion la ku yàlla namm ci moom ak texe promotion gii da nga ñëw profito ci ndax promotion dafa laaj profito waaye boo fi nekkee nag yéexamtaloo ba promotion bi jeex xaw ma nag fooy mën a foo foo jëlee looy profito ti moo tax maam xalifa ne jour in takun min ahli hadratihi ndax lu tax mu ne fa innama baabuhu baabu saadati mu ne fal Moustapha kuñ tànn di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xallafahoo moo huutal cheikh bi fuyoo di sirri ci bëbbi mbóot yi fa yonentu ba nekkoon di tuuse ay leer di tuuse ay sekkare di ko bëbbal di ko jëmee ci xoli jaami yàlla yi moom sëtam bi di ndonoom lu mat sëkk la fa wuutal moo tax fa huwa moom cheikhu tiyaan alxalifatu mooy kuñ wuutal ka fii kullil bariyaati ci mboolem bindee fi fa maamam nekkoon di fa tëbbee moom la fa wuutal muy tëbb mbooleem mbindee fi mbindee nag bu mu ne bariyatu kenn génnut melentaan ya sàññang ca biir moo leen di tëbb yent yent ya picc ya njanaaw ya bàyyima nit ña jinne yëpp min madadi cheikhina tijaani sharif radiallahu anhu moo tax mu ne kon fa huwa alxalifatu fi kullil bariyaati kam amma bëri na bu mu dajee madadun ak tëbb fil kaw ni ci monde bi min anwaari yi tukkee ko ci leer cheikhu tijaan yi mu ne tëbbik cheikh yi yàgg naa daj kàpp lépp lu nekk ci monde bi ak loo mën a doon ak koo mën a doon ak noo fa mën a nexee rek tëbbak cheikhu tijaan fekk na la fa nga yëg ak nga ñàkk a yëg nga xam ak nga ñàkk xam moo tax mu indi kam ne kam am bëri na bu mu dajee kàpp madadun ak tëbb fil kaw na ci mond bi min anwaar yi ko ca leeram ya amma dagale na anasiye nit ña waaye bal bàyyil sax waxatuma nit ña mais kullal xaliqaati la mbooleem mbindeef yi boo ne nit ñi nit rek a dugg waaye boo ne xaliqa malaaka dugg na jinne roxaane yu nay lépp naan nañ ca tëbbi cheikh na tijaaniya ku dul yonantu yi doo saxaaba yonantu bi sallallahu alayhi rek yaa ngi jël kitabu Cheikhun Tijaani ga mu ne nag lahu aji nekk la ñaal ko ala rutubatin gën cay kawe daraja minal xad mi bàyyi ko ci maqaamab xadmiya bi sama xad boobu kawe na jamii al aqtaabi mbooleem xutbu yi min maadin ci laala moom xutbu bu paase la wa min aati ak ci xutbu buy ñëw mu ne nag cheikh moomu ne yàlla ràngal na ko médaille bu ñu tuddee xadmiya xadmiya googa nag ci la amee maqaama bu kawe mbooleem bu yàlla yii yoo moo xam yu passé la moo xam yuy ñëw la mooy maqaama boo xam ne daal benn wëli yu mosu cee xegg ba bay àdduna bi tukki tamit benn wëli dootu ci loolu rek mooy moom lay di tekki foofu waaye tekkiwu ne benn wëli amati ah kay wëliw dana am de ba bay àdduna bi tukki wëliw yaa ngi ñëw waaye nag fa ca seex xegg kenn mosut caa xegg fa ca seex xegg kenn dootul fa xeggati ba bay àdduna bi tukki loolu ko yàlla defal moo tax ba mu ca heggee ci la dóor ñaari tànkam yi ne qadamaaya haataani ala raqabati kulli waliin min ladun aadama ila nafqi fi suur taalibe mba aliyu tamasini nii ne danga nekk ci wuri mbaa da nekk ci mandi mu ne ko maa ngi ci wuri mu ne ko waaw lii nga wax sa ñaari tànk yii teg nga ko ci jogare bépp waliyu abdul qadir jeylaani waliyu yàlla bu màgg booba di aw awliya waxoon na ko yéen ñaar ñëpp nag mënu a bokk wax dëgg mu ne ko ah kay ñun ñaar ñëpp wax nañ dëgg waaye Abdul Qadir Jaylaani benn tànkam ba waxoon man nag sama ñaari tànk yi laa wax tax Abdul Qadir Jaylaani yi wëlëb yàlla bu màgg boobu da koo tënkoon ci jamonoom ndax ñetti yëf jamonoom lépp moo ci ëpp wilaaya jamonoom lépp moo ci ëpp xam-xam jamonoom lépp moo ci gën a rafet aw askan man nag sama ñaari tànk yi laa wax te min la dun aadama ila la fi suur dafa lottu ci mën a bind beneen waliyu jox ko lu gën a rëy lim la jox ba koo ko wax lu gën a rëy li nga wax mu ne ko wax kay yàlla noon naa bind kartanaam la mën naa bind ku gën a foor yonantu bi jox ko lu gën a rëy lam joxoon yonantu bi ba koo ko wax lu hëpp la daan yonantu bi wax waaye ba ko kartan la ma ne coobare ja namut ko coobare yàlla namatut di bind wali yonantu bu gën a foor yonantu yàlla muhammad coobare yàlla namatut di bind waliyu bu gën a foor cheikh na tidiane yi lii la cheikh tontu taalibe ba Seydi Aliou Tamasini dama ci jaami nu misri demal ci rima bu Cheikh Omar Fuutiyu demal ci jawahirul maani lii lépp ma wax na ko ca fekk maam xalifa ne kam laxsatin bëri na gendeeku minhu gu bàyyi ko ci Cheikhu Tijaan gendeeku goo xam ne jaasibatin aji ñojji la ta lil arwaahi jëmee ca rooxu ya fii lamhi tarfin ci xëfa xippi rek nga woy firee ci mooy gendeeku pet ilaa naylil karaamaati ñoom ñoo ngi ñu jëm ci xam ak tedd nga mu na cheikh a mën a fekk rooxu yu tilim rooxu yu yéex ci xë maanaam ci gendeeku rekk mu xool leen ci xëfa xippi rooxu ya dem egg ca maqaama bi gën a kawe ci maqaamaay gay yàlla yi léegi seex la mën a fekk ngay ab woyu ci xëfa xippi mu xool la rek nga nekk tey di wëlliyu yaa doon woyu we tey yaay bi seex la mënoon a fekk nga nekk jaahil ci xëfa xippi mu gendeeku la nga mujj nek manan alim bu ñëpp rang di talif ay tire cheikh la mën na fekk sa xol bi tirim ñul ko u ko la sa xol ba mujj leer nañ di tuuse ay leer ya doon huti leer mais tey joxe leer motax bu ko bari na gende ko go ne dafa tol ni xefa xipi mu ñodd ci roxu ya jëmee leen ci naylul karamat ñi xam ci gën cay ñi xam maanaam tedd am ak tedd nga yi gaay yalla ya bokku ca góori yàlla ya bokku ca ñay teewe diiwaan gannaaw bañ nekke ña gën a suufe moo tax mu ne kam laxwatin bëri na gendeeku min hu gu bàyyi ko ci Cheikhu Tidiane lil arwaaxi gendeeku goo xam ne ñeexal na rooxu yi jaasibati muy aji ñor di bu la neexee ba te lil arwaaxi ñeexal rooxu yi fii lami tarfin ci xëfa xippi rek ilaa na lil karamaati jaasibatin ilaa na lil karamaati fii lam hi tarfin maanaam kam laxwatin jaasibatin minhu lil arwaaxi fii lam hi tarfin ilaa na lil maam xalifa nag ne yaa rabbi yow sama borom fa jaal yàlla nga def li bi qalbi ñeel sama xol bi maanaam mu sopp koo xam ne man ka nga xam ne xawaaw sopp ko hudan njub njubla yàlla nga def sama xol bi mu sopp koo xam ne sopp ko njub la yaxyaa dana dundee bii ci sopp ko addëhru diiru jamono fii subulul hidayaati ci yoonu njub yi waay waay yow yàlla cheikh mii nga xam ne gendeekoom moo gaaw ci dekkil xol bu dee moo gaaw ci jotale ku joti woon moo gaaw ci defar ku yàqoon yàlla nga ma dimbale sama xol bi sopp ko jeex ci moom takk ndax moom sopp ko ci la xol yi dundee ba mën a nekk ci njub koo xamee ne nii moom cheikh moo tax mu ne tux yi dana dundal laxsatuhoo gendee kom nga lu muy dundal xadiima ramimil xal bi aji jiitu ci fënax ji moom xol ku sa xol bi dee fënax mënta yëgati dara amatul benn réseau wallahi gendee ko cheikh nga bu la gendee ko sa xol ba mujj dund bay dundalaate maam xalifa ngay caali ne man lii ana kan moo may ñeexal bi laxsati ci ak gendee koom donte benn la fii kuli laxsaat ci mboolem gendee koom ya gendee koom yu bëri yooye waaye yàlla na ma ci yàlla wërsëgal ma xam ci benn rek su ma ci xamee benn sama yëpp def sama yëpp defaru waaye waaye moom gendeeku cheikh yëpp xam na ko ba moom sax dafay joxe gendeeku jëlee ko ci barkeeb cheikh utiyaan ba maam xalifa ngees ko sopp bu la gendee ko sa lépp baax waaye aadatul mujtahidina xattu anfusihim gaa yàlla yekat seen baax mooy wàccee seen bopp moo tax mu ne man lii bi laxsatihi waaye waaye fan la may tukkee waaye ak gendeekoom fii kuli laxsaati waaye xam nga ne cheikh maam xalifa mos ta ñàkk gendeeku cheikhu tidiane ci la xamee lim xam te jàngut ko ci la amee lim am ci la donee lim don timit ba jaaxal ñëpp ñu weex ak ñu ñuul loolu lépp mi ngi ko jëlee ci gendeeku cheikhu tidiane ka moo tax mu ne moom cheikh moomu fa fii kuli laxsaati ci mboolem gendeeku yi moom maa gendeeku bi nuuri laa wax ci leer wasiree mbóot wal faydi ak bëbbu asim gu màgg wa bil jës bi ak ak ñoddi xawi gu dëgër wa të yii di la inaayaati ak dëgër jagleel yi jagleel yi ma yàlla jagleel na ko gën a dëgëral na ma may jësbul xawi na ma may faydul azimu na ma may an nuur na ma may as sirru ndax gendeeku cheikh ya moom ñeent yi wala juróom yi lay joxe kum gendeeku bàyyi laak leer gu dul teqali ko kum gendeeku bàyyi laak mbuut mu dul teqali ko ku mu géndee ku bàyyi laag mbëbb gu màgg ku mu géndeeku bàyyi laag ñoddi goo xam ne gu dëgër la ku mu géndeeku la nga jagooxoon mu gën koo dëgëral muy gën di baax rek muy tayidul inayat looloo waral sama lisaanu maqaal bu lottee ci man a melal Cheikhu Tidiane dama ko bëgg bëgg bëgg mënuma koo tagg sax si lisaanu maqaal moo tax sama lisaanu xaal mi ngi mujj di ko tagg moo tax mu ne xat anshada sadd na alxaalu lisaanu xaal mi ni bàyyi ko ci man fii mahabbati ci sopp ko lu mu sadd baytan ab bayti xakkaa nettali na ko man xakkaa koo xam nettali na ko bax du xaalat lenn ci melo mooy ne sama lisaanu maqaal bu mënta wax ngir ak lott ci sopp ko ngi bëgg ko ba mënumaa lekkati ngir moom mënumaa naanati ngir moom mënumaa ti nelaw yu neex ngir sopp ko sama lisaanu xaal remplacé na sama lisaanu maqaal wax bayti boo xam ne lenn ci xaalaat yi ñoo koy nettali waaye sax sama laaj mënu koo waxati waaw bayti ba lan la mu ne min waji ahmad tukkee koo ne ci xarxaram cheikh na tijaani ba badrun weer lii ñaal ma xarxaramam baa nga leer naññi ba mel ni weer waxam xam fukki fan ak ñeent wa min yadihi aji tukkee la ca loxoom ba baxrun géej lii ñaal ma géej loxoom baa nga tabee tabee tabee di tànk di joxe di maye di sotti di dotti ba raw géej moo raw géej ndax géej ndox lay joxe loxo seexu tijaan ba wurus ak xaalis lay joxe wa min fammihi tukkeekoo na ca gémmañam ga leeraay gaag xam yu foor yi cay génn secret ya cay génn tur yàlla yam cay sikar tukkeekoo na ca duru darayaat yi maanaam yi xam yi wurusi wurusi wurusi xam yi ak xàmme yi yooyu yëpp muy ilmu dirayaat kooka gémmañ ak seexu tigaan gaa ngi koy sotti ci xam-xam yu nosewuyu leer yu foor ya ba mu mel ni leeraay ak melkati waayu wurus wu ñu nose xam-xam yu foor yi noxewu ya génn ca gémmañam nga tax mu waxee noonu kon cheikh a nga rafet ba mel ni weer wu xam fukki fan ak ñeent ci xar-xaram ba cheikh a nga tabe ba mel ni géej gu duusu cheikh a ngay man a joxe xam-xam ca gémmañam gu leeraay ga ba mel ni wurus woo xam ne la cay nosewu mooy ay peri xam-xam yu foor moo tax mu ne azim lëf lu màgg màggalal bi talaatihi ca fenkam nga albayda gay aji weex waay waay màggalal feeñ ak seexu tiyaan nga in zaharat bu feeñee laa yastakiru tawat ahadun kenn daa a raunaati jàngoroy tilim tilimi bakkan yi jàngoroy yi gàllankoor nit ki tilim tilimi bakkanam wallahi fu seex feeñ jàngoro yooyu dàqu moo tax mu ne màggalal feeñ ak seexu tijaan ga ndax moom bu xasee feeñ ak num la mën a feeñoo gisam googa noonu ci xar moom bu leer bii baraw fukki weer weer fi am fukki fan ak ñeent wallahi boo ko jàkk mbooleem jàngoro yu neexoon ci sa xol bi ci ay ayibi bakkan yëpp ala kulli haal léppay dàqu dara dootu fa defeti leer rek moo fay des ndax dafa daf koy dafa koy wattee leer moo tax mu ne maha effacé na alxawaalika yu ñuul ya jamoo xaalikatin min qalbi sama xol bi fa abdalaha remplacé na ko nuural maarif yi leeri xam-xam yi ma faydil fuyudaati ànd ak bëbbi bëbbu yi mu ne seex mooma nag feñam nga comme dafay dàq mbooleem jàngoroy xol yi ak jangoroy bakkan yi remplacer ko ay leer mo waral man sama xol bi ci waxin la ca nekkon di lu ñul lepp effacé wu la ca yépp leeri xam-xam ak bëbbi bëbbu rek man khalifa mo ci sama xel sama sama sama xol bi sama xol bi xéene wu ci kenn lu bon sama xol bi dara nekku ci luddul yalla motax lu way bëgg man ma baxee la ko ba moy yalla yàlla daal ku ko xëccoog man boo téyee benn ma téye fukk waaye lu dul yàlla man xalifa soxluwuma ko yàlla dong doy na ma te ko xam yàlla ñàkkoo dara ku ñàkk yàlla xamoo dara moo tax mu ne maha effacé na alxawaalika yu ñuul yi min xal bi sama xol bi fa abdalaha remplacé na ko nuural maarif yi leeri xam-xam yi ma faydil fuyudati ànd ak bëbbu bëbbu yi moo waral alqaas sànni na moom cheikh sawaati anwaarin way jolli leer yi bi afidatin ci yësulu dana dañee min dawiha ca leer googa maanaam ca leer ak xol yooya da it du daa ji duju naati way kukkuy kukku yi moo ne cheikh moomu de yàgg naa sotti ay ay ay leer yuy jolli ci ay xol ba ko ca sottee mbooleem ñuul ñuul ya newoon ca xol ya ay xayriyaat yaag ya ca haju lépp mujj na dàqu xol ba mujj set wecci leer nañ ñi yal na yàlla sotti leer Seexu Tijaan ak gendeekoom nga ci ñun ak yéen yëpp waay moo tax mu ne ba mu ko ci defee rek xataa xadaa ba mujj na sarma dan dappetu al askaaru sikkar yi day danoo di baaxu borom xol booba wallahi borom xol yu ñuul yooya ba leen cheikh ko mujj nañ sikkar euh, tudd tudd yàlla ci wërdu suba tudd yàlla ci wërdu ngoon mu gën nekk di seen baax bay na la waraa ci diggante mi dee fi bil xadaa yaa ci xëy ya wala asiyate ngoon ya muy wërdu suba wërdu ngoon bëri na xol bu tilimoon ñuul kokk ay fo rekk ca nekk waaye bi ko seex gendee ko sànni ca woy jolli leeram ya ca xol yooya ba mujj ya ca doon yu tilim yëpp dañ leer ga mujj installé wu ca borom xol booba mujj na guddeeg bëccëg ma nga téye kurusam di wirdo di wasifa tardeetul wenn waxtu ca jàkka ya fonk ko alquran di ko jàng moo tax mu ne kon nag xataa xadaa ba mujji na sarmadan ci dappetu al askaaru sikkar yi day dañu di baaxam baynal waraa ci diggante mbindeef yi bil gadaaya ci xëy yi wala ashi wala ashiyaate ngoon yi ba bëccëg rek ma ngay dem di wasifa ji fonk wirdo wi lool di di di di di suba di wirdo ngoon di wasifa def sikkar si àjjuma te yii yëpp ba ko seex géndee gugutoo woon mën a gutte woon dara moo tax ku fonk yii di ko saxoo ca mbooloo ma nga yëg nga ñàkk yëg géndeeku seexu teyaan xekk na ci yow kon nag tertu ko ta nga teral ko te dalal ko bu baax bàyyi lépp lu caaxaan moo tax mu ne ba mu ñëwee lam yab xa desut fiiha ci xol yooya seex gendeeku sànni fa ay leeram desetul fa isan foofale rasmun gent wala talalun minal xusus laalawun ciri bakkan ye wala xubsu tawiyat ca kenn bon bon yu yu lemu ya way bon bon yu lemu ya ca bakkan ba yëpp dañ na wan dakkati mokk na a asummu way doju yëkkatiku ya minu ci moom raasiyaat ya di way sax falam yemit xàmmeetu mi na xaq ci dëgg bay na zaati diggante jëmmu ji wasaati ak jëmmu jële moo ko ma waral kooka taraahu da nga gis ko yasxabu ma ngay diri min bishrin ci laala moom tàlliwaayu xarxaram la wa min tarabin ak ci sigirile lu muy diri sawbal karamati yëre yaa moom yërey tedd nga la fii ardil kamalaati mu koy diri ci suufu mat yi mu gën a maanaam di direeku loolu nag ay bayti la yoo xam ne boo ko firee àdduna bi tukki lam yabqa fiha idan rasmun rasmu mooy jeexital yi nekk ci kër te nekk ca suuf lu mel ni doom ya lu mel ni tojitu gàtt ya seen gàtt ya kabinay xar yaag bëy yaag ak këriñ yaag yu mel noona talal nag mooy jeexi jeexital yi nekk ca kaw mel ni wos ya ak daaj ya ak yu mel noona ngi doon dañuy di daajukaayu xar yaag bëy yaag yu mel noona waaye dafa bëgg a wax ne cheikh daal ba mu jëlee way jolli leeram sotti ko ci xoli gaaya ñooña mujj nañ seen xol ya eh, mokk na rupp dara desatu fa ñu mujj jeex tak mboolem bon bon ya lemoon ke seen xol ya di teree nit ki di tax nit ki di yàqule di teree nit ki war a xam lam war xam di teree nit ki war a hegg fam war a hegg yooyu yëpp dàqu na effacé wu ba tax na xolam ba moom mooy doj yi nga xam ne ay montagne la tiim ko yooyu mujj na daanu mabbu ci kanamam toj ba moom xàmmeetut jënn jëmm mu jigéen nag gannaaw bu nga xamee ne xegg na ca xaal booba nag ma ngay mujj nag desaat nag di diri ay mbëgte ak ay sigirle nekk di diri yëre yaay moom yëre tedd nga la te mooy mu ngi mu ngi mat sëkk maanaam fees na tepp ci baatin waaye mat na sëkk tamit ci zahir waaye ñaar yooy boo ko boolee ci ngay door a nekk insaanu kaamil jimaam xalifa waxoon ne wa fi fanaa il fanaa yi rutbatu suturi jooje moo ko dal nga xam ne la suura lahu bi cheyin su bay na zaati cheyin wa zaati axar xàmmeetu dara waaye gannaaw loolu nag del sihaat na nag ànd ak mat sëkk nag maanaam di jëfee sharia nañ ko bëggee leen lu nekk lay xaqam mu jox ko ko euh, wa aatoo xaqawoo ji yàlla waxoon ak la yontu bi ne waxti kuli fii xaqin xaqawoo loolu lépp def na ko moo waral was daada dooleeku na xel man ci xam wa asaarin ak i ay mbóot wa maarifatan ak a xàmmee waqat taxallaa mbir moom fekk takkaayoo na bi ahwaalin ci mbir sa niyaate yu kawee kawe gannaaw nag ba ko seex tuusee lam koy tuusee mu yëg lam yëg ba tax mu mel nii mu mel nag gannaaw si ga nag am na ay jeexital yu ci des mooy xam-xam bu xamul xàpp sekkere yuy ball mu mujj nag takkaayoo ay jikko yoo xam ne yu kawe la muñ lool maandu lool jub lool ragal yàlla lool fonku jak lol, fonku ay mbokam lol bëgg alquran lol lol, koor lool mën a naafi la guddi lool mu ci ci ngistal mu ci ci ndéggtal mu ki ci xañaan mu ki ci temon, mu ki ci soxor mu ki ci la to ak ya aju mu gëna na ca mom legi la fa def ilman wa asraran wa maarifatan li nak wa qatahala bi ahwalin saniyatiya motax mu ne wa sahbu talibiyam ya damina warlu na alhaadi bi lahum ñeexal leen abadan faw lum leen warlul naylal ka kamaalaati am ak mat yi ma naylil futuhaati ànd ak am ak hubbeeku yi taalibe cheikh yi yonontu be leen warlu ne leen ku jàpp ci tariqab cheikh bi wallahi bala ngaa dee danga nekk waliyu kaabil bala ngaa dee da nga nekk te waliyul maftuux koo xam ne dañ lay hubbi tabaarakallaahu boo jàngut sax da nga xam nga yëg la gaay di yëg moo tax mu ne taalibe cheikh yi yonantoo leen warlul ñu yegg ci maqaama yii la yëpp nga xam ne tey ci lañ koy mën a xamee kon nag wa sax damina al haadi lahum abadan wam wax na ko ci beneen bayti waqad damina al haadi kasiran li ahlihi wa nahnu ila zaka nu nusaariu mu ne yonantu bi garanti na cheikh ay may yu bari garanti yooye ca may yu bari yooya tax ñun ñëpp ñu ngi takk suñu digg dem di ko njëkkalante ji may yooya bokk na ca képp ku jàpp tariqam cheikh ci gëm yàlla ngay dee gëm yàlla marchandise am forot la feeg jaayagoo ba xaalis bi nekk sa poosu rawagoo ndax diggante marchandise am forot fi nga koy jaayee agent secret yaa ngi ci douane yaa ngi ceeg ci xaju yow tamit nag yow fi nga fi nga jëndee marchandise gëm yàlla seytaane ngi fi yàqal la àdduna ngi fi bànneexu bakkan a ngi fi yooyu yëpp la nga leen traversé da nga xam ne caaxaan baaxut nga dee ci yàlla bala nga nekk waliyu boy de dana neex ci yow baraw raw gementu bala nga de bo da nga nekk maanaam almaftoox ku ñu hubbe bo de bañ dugal sa bàmmeel yonantu baak Cheikhu Tidiane ak euh, Seydina Aboubacar ak Omar ak usman ak ali da nga leen fa fekk nit ne waw li de ci Tidiane ken xamuñu tollu par bis tu jenn jëm naka lay mëna téwé ndor ci xabru yu bari yoya mam Khalifa ne yéen gatt xam-xam jant bi ben rek la ñepp ngi say jantu khamis manam ben bis la ñepp ngi say khamisu taal xames ak jant bi yépp ci leeral yonantu ba lañ ko bindee waaye waaye bu jant mën lool loolu man ko yonantu mën na lu hupp loola kon ci xan baxut motax mu ne kanu nek na talibé cheikh ya bi dairatul fadli ci mbolo hum ngeenel al azim gu mag gi kama qad kana comme naka la nekkee sayqoom sen serign xadmal maqamat di motali maqamay ba sen serign nekkee di xadmul maqama nga xam maqama ci ñom ci mom la hem famu ci maqama ken musufa te kenn dutut fa yeggati moo tax yàlla teralee taalibeem yi ñu nekk ci taali taalibe yoo xam ne daayratul fadli daayratul fadli na boo ca xasee bokk yàlla seetul loo ko def yàlla seetul loo ko defal da ngaa bokk ci yàlla waxoon ne inna lisina sabaqa lahum minal husna ulaika anha mubaadun da ngaa bokk ci yonentu bi ne woon haula ilal janna laa ubali kon yàlla nañu yàlla bool ci daayratul fadli boo ci xasee bokk yàlla seetul loo ko defal yàlla seetul loo ko def dawaa ir yi dañoo bëri mais taalibe cheikh la yàlla tànn def leen ci fat fadli dawaa yi bokk na ca daayiratul amri digal la defal defal daayiratul nëx yi tere la bàyyil bàyyil daayiratul sawaab mooy dañ la yool boo defee nangam daayiratul xeqaab boo bàyyee nangam mbaa nga xëtt nangam ñi mbugal la waaye dawaa dawaayir yooyu yëpp ba ca gën a féetee kaw di seefu dawaa yi kooku mooy fat fadli kooka nag ko ca xas bokk nag yàlla seetatut loo ko def yàlla seetatut loo ko defal moom la Cheikh na Tidiane doon wax ne faman kaana fi daairatil fadli laa taduruhu amaluhu kama qila man sabaqat lahu al inaaya lam taduruhu al jinaaya képp koo xam ne xinaayatul ah, ilaahiya moo xas jiitu ci yow jinaayatu mënutu laa lorati man man sabaqat lahu al inaaya lam taduruhu al jinaaya loolu nag ca la hind bokkoon bintu utbata mi nga xam ne moo raylu woon xamsatu bay puufu reswa ñi xotti ko dagg lañ dagg ca moom waaye bokk gi mu bokk ci daayira fadlee tax fat fatu Màkka tuub na bokkoon ci jigéen ñi doon jaayante ca Safa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko yonent bi xool dafa maskaw sax bu jigi ba mu waxee la ko yonent bi doo xam ne ko yaay hind mu ne mooy hind yonent bi ree nga xam ne kon daayira xool lim def ci lu bon waaye bokk gi mu bokk ci daayira fadlee tax xoolal fa mujjee tay moo tax kon bokk ci daayira fadli boo ko xasee def yàlla seetu loo ko def yàlla seetu tamit loo ko defal Cheikh na Tidiane nee na nag tariqaam bi képp ku ko jël di ko sellal yaa ngi ci biir daayatul fadli yàlla ñu ci yàlla boole mu ne moom mooma mooy kilifaay wëliyu yi looloo waral tam nga ñooy kilifaay njaboot yi seex boo ko xamul xutbul wujjoodi mooy xutbu yu mbindeef yi wasiru sirri mooy mbóotam mbóot daayiratu sirri mooy secteuru mbóot maanaam dinaa boo bi nga xam ne mooy tuuse mbóot yi kooka mooy seexu tijaan lëtii dinaa moo ba nga xam ne xat xawat làq na kullal fuyudaati mboolem bëbb yi kon daayiratul ixaata bi nga xam ne lépp ci moom lay bàyyee koo fu mu mën a dem door faa dem fu muy door a door faa hegg kooku mooy Seexu Tijaan kooku mooy xutbul wujoot kooku mooy siru siri nga xam ne ma ngay junj xaqiqatul muhammadiya bi nga xam ne siru sirri mooy mbóot moo xam ne laa yufsa wala yusumu raayxatu illa man sama raayxatal xaqiqatal ahmadiyati allati la sabila li wusul ilayha li anna alxaqiqata almuhammadiya allati hiya zahiru alxaqiqatul aqi zahiru xaqiqati ahmadiya xaqiqatul muhammadiya bi nga xam ne mooy zahiru xaqiqatul ahmadiya abu yasil basnaani yu nee na xuus naa ci lëgg googa di sàkku xaqiqatul muhammadiya gi gën a jege fekk sama digganteeg moom juróom-ñaar fukki junne yi la su ma ko jege woon rek mu lakk ma fekk na fa ida bayni wa baynaha sabuna alfa xijaab law danawtu ila al awali wallahi minha laqtaraxtu wallahi loolu la wax di koon ma lakk kon nga xam ne mbir ma yombut de maam xalifa nag ne seex mooma nag foofa moo fay daayiratu siri foofa moo fay siru siri googu su ko defee nag awraaduhoo wir doom ya xad ruwiyat soloof na ko an rasulillah jëlee ko ci yontu yàlla muhammad fii sihatil wi mbis mbir mu muy nekk ci wér ak askane fii asnal kamalaati mbir mu muy nekk ci gën cey kawee mat mu ne wir doow seex wilee ca yonantu ba lañ ko jëlee yonantu baa ko yaqasatan laa mën a man su ko defee tamit mu nekk ci askane gu wér boo xam ne tey moom ak yonantu bi dara dag daggaliku ko jokkaloo ko lu wér la waaye tamit mu nekk ci gën cey kawee mat fuy mat di xam rek foofu la commencé kon wirdo woo xam ne téenqal yonantu baa ko nosee foofa la ngëneel mën a xem foofa la mën a foofa la may mën a moo tax mu ne fallaahu yàlla man na xéwe na bihaa ca wirdo lan ngir ak baaxee wa takrumatan ak ngir ak teddanga fii aaxiri dëhër ci mujj ak jamono asmaanal jahalaati asmaanil jahalaati jamonooy réer laa wax mu ne nag wirdo wi ni ngëneel li rëy rëy rëy yàllaa ko dëxañ denc ko ba jegleel ko mu jëg jamono fekk na booba nag jamonooy riir la fekk bàkkaar bëree bëree bari ba boo xoolee gis doo mën a ñàkk a xool boo dégloo dégg doo mën a ñàkk a déglu boo waxee wax ko doo mën a noppi soo làmbee daj ko doo mën a téye sa loxo boo doxee xuus ko doo mën a toog ba jamono demee ba toll fii amul dara lu war a sowe waa jamono ci la yàlla feeñal Seexul Tijaan ak wir doom wa pour mu mën a sowe mu jëg jamono ni maamam sowee woon njëlbeenu jamono moo tax maamam mooy ak mbooloo ma sulatu minal awalin Seexu Tijaan mbooloo ma mooy wa sulatu minal seexu ko firee noona moo tax nag kon tekkiwu ne ngëneel lu ne fa war a gaaw déedéet di yàlla ngëneel kat yàlla da ko programmé maam xalifa waxoon na ko ibnu Maayaaba ba mu ne waaw ngëneel lii ngeen wax ci salaatul fatiha wax ko ci wirdo bi lu taxoon saxaaba yi jëlooñu woon wirdo bi mu ne duwutoon seen sens fekk lu luy ngëneel fa war a gaaw yonentoo gën ñëpp tamit ngi nii fa mujj seexu tigante wirdoom wee gën wirdo yëpp waaye terewul dafa nekk ca mujj ak jamono ndax kat ñooñ ngëneel ñu njëkk ña di yonentu bi saabaam yi amoon nañ ngëneel lu doy nii ku ci am bàkkaar boo ñëwee ci yonentu bi jéggalul ko yàlla mu jéggal la mu jéggalul yàlla jéggal la soo amee soxla mu ñaanal la ca soo gagee mu gàgganti la soo xamee jafe-jafe mu mu teqale ko yow léegi wala annahum izalamu anfusahum jaawuka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul la wajadullah yow nak ko am li bu len yalla joxone wirdo be salaatul fatiha kon mu jox jamono lu ñuy xam waye nag bi jamono ñewé nak yaqku xamuñ lu ko gaganti tabarakallahu ci la yàlla xaj indi seexu tikaan mu war tagarti wa jamono xetali len ak wirdoom wa kon nak yalla ko jagleel ñun mu jox jamono comme nim jaglele jagleelee min al akhirina ci wa sulatu min al akhirina mu jox jamono waye bu ñu nga nga def waragal a de déedéet déeg loolu njuumte la alfadlul mutaqaddim njumte la moo tax mu ne kon fallaahu yàlla man na xéewe na bihaa ca wirdo wa fadalan ngir ak baax wa takrumatan ak ngir ak teral ñaan mu ne fii aaxiri dëhri mu jëg jamono azmanil jahalat laa wax mu jëg ci jamonoy riir waaye jamono ju mujj ji bu ñu xamutoon wirdo bu mel ne wirdo seexu tigaan yi xamuñ kilifa gu mel ni seexu tigaan xaw ma fu ñu jëm cheikh yi mooy sama sëriñ attijaani ko gu tiyaan abul abbas yi mooy abul abbas kooku mooy maanaam dàkkantalam ahmadu ahmad mooy turam man mooy koo xam ne yoxtu dana joxe maratiba martaba ya arbabal bidayat yi borom tàmbali ya ñooy tàmbali bees moo leen jox seen fondation ñi yéeg di xami escalier ba dem borom nihayat yati mu gën leen a yokku ñuy gën di dem rek mu jalliyan mooy ki jër premier fi mayadinil wilayati ci lefam wilaya maqsudul bariyati mooy kiñ jublu ci mindeef fi mahmudu naqibati mooy ki ñu sant ci ay jikkoom ci ay jëflanteem abda feeñal na jawahira sirin ay wuru si mbóot yoo xam ne laa nafra den den laa di ko ñaal min baxariya tukkee ko ca géejëm ga alans bi ngay aji neex min mutil karamaati bi bàyyi ko ca kay joxe tedd ngay mu yonantu yàlla muhammad feeñal na wuru si mboo dee te mooy wirdoom wi yu xamul ndend duñ ko niraleeg wenn wirdo mu bàyyi ko ca géej gu neex googa nga xam ne mooy géej ak yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam géej googa nag la maam xalifa commencé di